Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 19 mars 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV dañuy desandi toujours ci campagne électorale bi ginnaw bi nga xamanteni ni c'est jour J 4 ñu dal di jàxkal li nga xamanteni moy campagne bi dal di noppaliku la samedi dañuy seeti ji ki nga xamanteni moy candidat coalition taxawu Sénégal di Khalifa président ginnaw mom ci boppam lu mu xamlé dal amna yo xamanteni ay fausse promesse la yo xamanteni ay digaate yu dul deug yo xamanteni ñing koy renier ginnaw bi nga xamanteni mom su doonee président de la République du Sénégal dina respecter lépp loo xamante ni teg na ko ci ay engagement donte politiciens yi dañu tàmmal sénégalais ci campagne indi ay liggéey yoo xamante ni duñ ko respecté moom Khalifa Sall mi ngi ciy démarqué wu ba noppi daal di joxe xalaatam ci bépp nit boo xamante ni tey xam nga ni que lii nga xamante ni mooy peuple sénégalais bi gën a xam lépp loo xamante ni tey ñi ngi koy jànkoonteel mu daal di leen servir li nga xamante ni maanaam mooy ci wetam ay moment yoo xamante ni ñoo gën a difficile ginnaaw loolu nag su jaaree ci expérience bi nga xamante ni en tant que homme d'état moom Khalifa Sall am na ko suñu sukkandikoo ci lu ëpp Petit ci ñaar fukki at yo xamanteni ni passé nako ci li nga xamanteni moy opposition bi dina indi ay conviction yo xamanteni du dara ludul affirmer li nga xamanteni moy ay fausses promesses yo xamanteni ay politiciens dañ koy def ci campagne ba nopi dal di koy renier mom en tant que Khalifa Sall di président li nga xamanteni moy coalition taxawu Sénégal Khalifa président su nekké président de la République lépp lo xamanteni ni nako wax nako dina ko respecter ci bépp fànn boo xamante ni ak engagement la daal di koy affirmer ci lépp loo xamante ni tey mën nañu sukkandiku ci candidat bii di. Khalifa Sall dal di proposer li nga xamanteni moy ressembler ba nopi dal di mobiliser bépp force vive de la nation sukkandiku ci ben élan boo xamante ni ñoom ñëppay sen seen doole ba nopi dal di conduire li nga xamanteni moy mooy réew mi ci ben confiance bo xamanteni dina retrouver wat li nga xamanteni moy espérance am di yakaram ñu partager ko jëmale ko ci ben avenir bo xamanteni da fay indi li di jam indi liberté indi sécurité ba nopi indi prospérité ak solidarité fi ci réew mi en tout cas mi ngi xaar li nga xamanteni moy mooy manam def serment am di engagé wu li nga xamanteni moy mooy Sénégal ci benn voix bo xamanteni ni ku nek ci yeen manam mën nga ci gis sa bop loolu la Khalifa Sall xamle bokul na dal ci candidat yo xamanteni lepp lo xamanteni ñing koy diggé ci ay élection ba nopi duñ ko respecté mom bokul ci loolu lenn dal lay xaar ci askanu Sénégal le 24 mars ñu votel ko massivement mu gagné élection au premier tour le 2 avril mu def li nga xamanteni moy passation de service ak Macky Sall mu jël bép sénégalais bo xamanteni am nga ben élan de solidarité nga duggal sa loxo ngeen gouverner Sénégal ba nga xamanteni képp kuy Sénégal dañ nga ciy gis sa bopp muy programme ki nga xamanteni moy Khalifa Ababakar Sall. Thank you.